waaw ay ca comme ni ma koy waxee saa su ne rek tey nag yàlla dafa dogal pàcc bi dafa nag yàgg na ah lii la yàlla dogal nag ma bëgg nag ngeen nangu ko rek la yàlla ye kese tax nag ah may nuyu nag si di nuyu sama soppe di sama am di yi ak sama am di ay comme ni ma ko waxee ndax loolu mënta ñàkk dëggul neex man la nag man la jëm ah maa ngi nii ma maa ngi sàcc ba yàqu léegi wax na nag tey comme caaroy moo ko yar affaire bi boobu la <laughs> may nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp Serigne Momar Diarra Touré ñëw bu mu fi ñëw mi ngi bëgg a ñëw. kër gi bu fi ñëw de. bu mu fi ñëw bu mu fi dugg bu mu fi dugg ma lay. laa ñëw ba tey nag maa ngi arko Pikine génnaguma ci arko bi waaye nag tey damaa dalal ndaanaan ndaanaan boo xamante ne nii kenn naat appelé wu ko mu yor fi troupe boo xamante ne nii macha allah si banlieue bi mu ngi toj banlieue bi ñu naan ko banlieue zar ma koy wax aada aada bu baax a baax di la gërëm di la sant xëy na ndaanaan mi ngi wax ci yow la nag parce que moom ku baax rek moom mooy tudd baaxu boromam te aussi ñun ci côté aar bi ñu ne ndaanaan aussi moom mooy xam moromu ndaanaan kon itam ñu ngi lay jaajëfal maa bëgg ñëw nag tey ci turubam bee mu nekk muy arts ñëw dañ kumpa lan moo fa xew parce que man coow dama damaa sonal aada loolu loo ci xam waaw ah, loolu moom dañ ciy sant parce que tamit aussi du jafe gis pour jafe gis mais yàlla moo dogal yenn saa yi liggéey bi da am fu muy toll foo xam ne du nëbbatu wala làqatu mais da ngay làqatu da ngay dugg sa ruq pour nga xam yow kan loolu la mais aussi tamit dinañ sawar pour yéen ngeen ñëw ci compagnie bi xam li turu bi nekkee di ngeen ñu may ñaari sens benn am na koo xam ne xamuloon arts mu jaare fi xam ban les arts deuxième chose bi am na koo xam ne mu ngi dégg ban banlieusard rek mais xamul lan mooy kumpa te pour ñun loolu nekkul lu garaw quoi parce que ñun dañuy jàngi ba léegi kon tamit keneen ku ñu nekkee dañ la wax ah, kon daal yow aada danga leen neex leen bàyyi tey du leen bàyyi ëllëg dinaa leen topp ba sët leen si miir wis bi ba mu dagg ngeen na nga naan bañu ma naan du leen bàyyi maag yéen du yomb seen ruq bi ngeen nekk ne instant bi yéen ci lan ngeen di yëngu yéen a toj dëkk bi de ku ma mu ne ma ah kaay leeral doo dem xool ñoom ñoom aada ku ma dajal rek mu ne ma demal banlieue ma ne xaaral ma dem xool banlieue lan moo fa xew ci lan ngeen toll. waaw ñun nag ñu ngi ci liggéey yoo xamante ni yu wuute la mais yëpp teewul aar la yëpp théâtre la ñu ngi ci projet téléfilm boo xam ne ñu ngi ciy waaj bu tudd fu dëgg féete incha allah ñu ngi ci tournage yi nii ñu ngi nekkaat ci beneen projet boo xamante ne nii mu ngi tudd Pa Korka a compliqué la bi duñ ciy job ñu ngi aussi ci benn création boo xam ne mu ngi tudd question pour un super champion ah. waaw boobu moom mooy almin bar ñu ngi laaj kan moo gën a tedd ci yonent yi kan moo gën a màgg ci yonent yi sangu-sang yi waaw léegi nag xam nga may def du ma la du ma nangu nag li nga xamante ne moo xew ba les arts lépp nga wax ma ko fii su ko defee damay daal di naan ràpp bu ko defee nag nga daal di woo sa gaay yi nag yaa ngi may dégg sax fans yi ñàkkul xam nga ay fans sa gaay yi am nañ ay fans am ñu leen bëgg am ñoo xamante ne ba les arts moo leen di daaneel yéen la ñuy wër ba fajar ñu daal di dem tëri dëgg du neex su ko defee na nga xamal len ne fii ci RTV référence hein ah, waaso fa la ñuy tapé buñ fa tapé rek yaama gëna xam dañ lay daal di seetaan te nag instant bi fi réew mi tollu ak fiñ tollu ni nii ma maa man jéggi YouTube bi erreur té ñàkk a aada tamit erreur la ma bëgg na nga joxé rendez-vous ne len semaine semaine bi di ñëw ya nekk ci kër gi yaay toj kër gi yaay nekk léral di léral leen daal lay lay lay lay promettre gaay RTV xawma ñaata abonné lañ am mais ci carton yalla bis bu numéro bi dawee ngeen duggal en ah, pilote bi ci kàttan yàlla ngeen xam ne gars yi suivre nañ ko bu soobee yàlla parce que tamit banlieusard banlieusard yu ñëpp la te li ma wax sànq mooy ruqu mën a kan bi dafa am solo loolu nit la engage ñun ñu ngi def suñu ruqu mën a kan mais ñu ñu ko sekkal ñëpp xam ne ñun ñooy ñaan ci kàttanu yàlla yonent bi ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi ñu xel ñu setaan ñu ci kàttanu yàlla yonent bi RTV incha allah ak banlieusard ok kontaan naa mbokk yi comme ni ngeen ko déggee nii rek comme ni ko aada waxee nii rek bu soobee yàlla semaine bii di ñëw bu soobee yàlla waa Baleza la ñuy dalal ci biir leeral muy biir RTV ma bëgg nag yéen ñëpp ngeen seetaan ko ndax ñàkk seetaan ci RTV heure la fi réew mi toll ndax man jeeg bi ke mënuma koy waxee man yaayi mama Nogay jéegu YouTube bi maa fa nekk di ko toj di ko tasaare di ko partager di séddale def lu ma saf ak lu ma neex xoolal aada dama nga répété ba kenn laal la wax ne ko pas dire ba ñu jouer parce que ku ne xam na ni paan bu deful dara soo ubbee robinet di tànk par ay

ci benn exercice bu ma naroon def automatiquement mais dañ koy dagg na benn góor ñëw yéeg. yow lan la may ma sama jàmm soo jógee doxaani ba ñëw di amante kër gi yow lan la looy jaay dama ko jënd amoo looy wax yow kuréel moo yow lan la may nit ñi seen jàmm nan ma bañ a moytu la ndax mayatu moo dara ci kër te looy jaay naa ko jënd. up place sur place pour ñu mën a photo nekk ay mag ak rak te teewul maa bàyyi danga maa bàyyi ma tamit ma ëmb kon man la moo sama yoon ay waay ay waay nga Sénégal ñëw yow jaay naa ndox jaay naa bisaab lan laa ci yow doogu laay tas ay waay mi ngi wax sama sëy mi ngi wax sama sëy bu tas jëkkër di man ma bàyyi di lay dóor ma bàyyi lan laa Ali Baba il est calme, voleur. maman maman, le top si on veut. D'accord donc si Ali Baba il est calme voleur. est mort, Il Ali rek dama ko war a jël mais li muy def dafa nekk sama bopp ak loolu. dëgg la loolu moom secret bi beneen laa Good. gëm suñu borom man damaa judd ci gëm damaa ci gëm yaru ci gëm door way gëm dëkk moo tax ma gàddaay sama réew nara tiang pama ane amee kan ane lan mau waral bàyyi mas bëgg dimboo mau jadi, ñaar at la fi jóge ñëw tabax immeuble mbay seet yambar bi nga xam des ana nga nga toog fii man ñoom it di ma raw man man su ma nee toog fii samay morom di ma teg may xool te mun ma faj samay soxla ma des barsàq mun ma ko gën a yàlla mooy maye de yàlla mooy maye yow yàlla mayoon na la de xanaa tey da nga xeex lu la suñu borom bi may delloo si ana moo gën a metti nga toll ci war a am te amul. Ismaïla Ismaïla lii la sa soxna wax dama bëgg nga déglu ko li nga soo amee soxna su baax da nga ko war a déglu li yàlla ja nekk Espagne yàlla ja nekk France moo nekk fii gis nga doylu dafa am solo gis nga ñii di dugg ci gaal gi di dem ñàkk doylu moo leen yóbboo loolu te ñun ay jullit lañ seen wax ji tàgg na ko doon loolu lu tax dama mën a déglu xanaa seen alxuraan yi nekk seen yàlla yi moo da nga réer ba nga réer ba tey daanee la doon lan nga bëgg lan nga bëgg lan nga bëgg ay yàlla xoolal xoolal yéen may bëgg mer nga dal te gis nga man dund ci gi ñi ma eh noppil yow may ma tuma noppi may ma nijaay xam nga ma lay man ma ñii dem ci gaal yi di ñëw di tere seen ndey yi dégg nga gënuñu laa liggéey ndey demal ba mu neex la. waaw demal ba mu neex la waaw. yow yaay yaay yoo xam ne du dimbale doomam yow de yàlla dafa waroon soppi kii jabaram nekk yaayam yow ma yaakaaroon da koy digal lu baax tere ko lu bon nga koy tere mu dugg ci gaal ana yàlla ana wër ta kan mooy joxe wër ta. dara nga gis nga kii sama ma koy bàyyi mu dem.

C'est parti. gars yi nañ ko def benn deux minutes ngeen xool

yow soppa ci confinement bi fii demoo fi woon màkk ñëpp ñu ne bu kenn dem yow nga dem. man màkk Koulibantang laa demoon. laay man maa def erreur man damaa dégg ñu ne soppee nga màkk rek ma defe ne. Koulibantang ah. mais maa ngi lay siyaar euh, Ndume. Euh, yow suma sër nga suma suma xarit nga te lu yàgg dëgg la donc je pense que dañuy xamante boobu sax xewul daal <laughs> sant yàlla bu baax a baax a baax. di aussi ñi nga xamanteni ne ñu ngi sétane présentement di am mbégte fi ñu dajé parce que da nga ni fi arko sa arko la ma lay ñaan rek beneen yoon nga xaw a gën ñoo laaxaale suñu arko <laughs> ndax waaw lu ñëpp bokk <laughs> mais kontaan naa jàkkaarloo yow franchement ça fait plaisir waaw. waaw loolu kontaan naa ci na waaye arko bi nag da di léppi ku ne léppi ku ne loxo ku ne nga ca biir arko bi daal mu ngi mel ni laax bu ñu soow rek teg ko ku nekk di tibb rek di sex ku nekk ak ni ngay defee xam nga man moom dama xër ci arko ba bu ma naan arko bi kenn naa sama arko ba loolu waaye nag maa ngi yéen a ko bokk dëgg du neex man sànq damaa toog ci répétition yi gis la nga def benn action yow daal jàpp nit ñi dajale leen ba ñu runkaloo ba nekk benn bloc ñi leen jàppante duñu jàppante am na ñoo xam te dañoo bitti bitti ñii laxasoo jëm góos ñii laxasoo jëm droite ñii tëddee njaaxaanaay ñii wetu ñii toog ci suuf ñii sukk ñii taxaw mënuñoo fexe ba tàqali ko loolu mooy ban façon

ñu baaxee leen ko waa ñu dolli leen ko moo taxoon ñu créer exercice boobu bëgg nag ñoom ñu am ci benn lecture d'abord première bi mooy comédien du tricher d'accord benn la bi des mooy comédien bi dafa war a patient bi ci des comédien bi dafa war a gëm boppam bi ci des mooy comédien bi dafa war a gëm partenaire am daf ko war a déglu daf ko war a yërëm dafa war a am confiance ci moom dafa war a doyloo aussi moom li mu koy proposé mais bu fekkee da ngay jouer man li ma wax rek moo baax man li ma xalaat rek moo baax ki may nekkal du jeu li mu xalaat baaxul li may proposé baaxul donc jeu bi da nga koy yemale ci sa bopp te comédien waaw dafay tëju donc il y a beaucoup d'ouverture boo xamante ne ki ngay jouer am na droit di la proposer ay affaire donc moo tax sànq ma def exercice boobu boole leen ñoom ñépp ci situation bu catastrophique ni leen nag waxtaan leen ba dindi ko waaw waxtaan leen ba dindi ko te loolu dafay indi euh, cohésion ci groupe dafay tax ku nekk dendek ki nga nekkal ku nekk xeñtu sa morom xeetam warul su la déranger ku nekk jàpp ni non lii moment bi leneen la ñu tal ku nekk jàpp ni non man kat ah bu mu proposé kii mu jaar fii kii jaar fii est-ce que du ma am issue donc loolu laa ci namoon moo tax ñu def exercice bi à la fin gis nga wax naa leen ko bu kenn tricher nag mooy tant que nit ñaa ngi jàppante wala ñu bàyyante te bu loolu amul da gis ne exercice bi mën na yàgg mën na difficile mais lépp ci waxtaan la lépp ci yërmande la lépp ci gëm sa borom la lépp gëm sa moom sa sa sa morom mais gëm sa bopp également moom mooy indi loolu quoi. <laughs> waaw dégg ngeen ni ko soppe waxee comme noonu rek la amee ñoom yàlla dafa dogal dañoo nekk ci aar bi nekk suñuy njiit ba pare nag di ñu jàppale ci côté bu ne nag. côté boobu xalaat rek ñun ñu koy jàppale ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk seen ginnaaw gis ngeen li mu fi def tey ah, nice na trop wax dëgg yàlla li mu wax tamit dëgg la xale yi nag balaa ñu ko dindi sonn nañ torop de am na si ñoo xam ne dañoo triché waaye am na si ñoo xam ne triché waaye sonn nañ ñàkku nañ torop nag sonn nañ ba bëgg de man mi toogoon fee sa damaa sonnoon ku ci nekk maa la defal nii yëg defal nii yëg defal nii dafa metti may wax nag soppe maa ngi lay sant la gërëm di la wax merci beaucoup yal yàlla jàppale yal na yàlla yokk xéewali may la njaboot gu barkeel yaa xam li nga bëgg yàlla defal la ko fii nag mooy RTV sama chaîne bi man jéego YouTube bi ñàkk fee abonné wóorul parce que fi réew mi toll maa fi ne dëgg du neex du ma ay foo ah, en looy tàggoo. di ziar ñëpp di bëggee référence euh, suñu suñu référence bopp la waaw xam nañ ñi fa nekk te xam nañ pas-pas bi ngeen am aussi ci aar bi ak seen taxawaay ci culture d'une manière général donc euh, référence daal suñu référence na ñëpp abonné wu rek foofu toj.